đời ta بارك الله فيك فاتو سار فاتو سار doom si seega ak roqee jóg ummi ja Kouthia na jege si waaw Mouhamad Moustapha na jege si jerejeuf soxna Fatou Diouf yalla yalla def la mak di domci ci Fatou sar jerejeuf jox soxna Fatou euh di domci ci soxna Serigne Sega eh, sar ak soxna ak eh, Roqeya Diop ñu ko parene oumar Dia ki ci top moy Fatima Aisyah Fatima Aisyah Kunta Fatima Aisyah Kunta di domci ci. Mamadou Guèye ak Aysatu Mbeng Fay ñu ngi ko ne Amina Aminata Diop bu ko defee soxna Fatima soxna ki mooy Mamadou Moustapha jàll noonu la aywa Mamadou Moustapha Diallo di doom ci Cheikh jàlloo ak Ndey Fatou Ba ñu ngi ko parrainé Mohamed Diallo bu ko defee Mohamed Moustapha bu daanelee Fatimatu Aïcha moo ci topp Fatimatu sa Konte wala Kunta Mohamed Mohamed Moustapha bismillah jërëjëf Mouhamed Moustapha Diallo yàlla yàlla def la mag te barkeel te fay say waajur ñu ngi ciy toftal Fatima Aïcha euh, Kunta di doom ci Mouhamadou Guèye ak Aïssatou Mbeng Fay ñu ngi ko terale Aminata Diop bu daanelee incha allah Ahmed Gaye